waaw maa ngi leen di fay mhm. di wax onze billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw buñ sante yàlla julli senente bi di ñaanal sama papa ak sama tante yàlla na leen yàlla xaare àjjana firdawsi di leen nuyu yéen ñi ñëpp yen site internet yi maa ngi leen nuyu mhm. tey nga war a dajawaat ak sa adversaire Gouye Gui ginnaaw la euh, laa guerre des mots ci li ngeen jógee barki alxuraan dooma daan billaahi wallaahi taala bu ma bàyyi ma bàyyi làmb tey na ngeen am frontal yéen ñaar bët ak bët. Hmm. waaw loolu lu taxoon ñu koy def muy maanaam combat bi taxaw comme que taxaw na amatul leneen lu ma siy wax waaw loolu la woon. Gouye hmm. Gui adversaire de taille la Reug Reug en temps daf fi jàng beneen xeet sport ba di ko pratiquer ba nekk ci daaraan muy MMO. mën combat rapproché te bu njëkk li daan wax mooy rëg-rëg bëri bi moo gën a bënn ka xeex bi est-ce que tey combat bi dafa bokkul ci full option mooy jàng xeex ak mën a xeex pour mën a dóor mu daanu mën a cam wala xeex bu jiwaloo pour bunt bëri. waa loolu lépp dañ koy delloo yàlla suñu borom moo xam luy xew suba. ñu naan man maa ne naa maa ngi préparé bu jour ba bu lamb lamb ji lu mu laaj rek dama koy def incha allah. rëg-rëg dafa changer communication par rapport. waaw mais dañuy ñaan yàlla chaque jour ñu màgg.

you kon ñu ngi koy ñu ngi koy dañ ñun lenn rek lañ koy dañ koy ñaanal jàmm dem na ba may ñu chance li si des nag du ay wax géew ba la incha allah. waaw Omar gis ne tey yow jël mhm. di ko ñaanal jàmm. di ñaana sama bopp jàmm ba bis ba rek yàlla suñu borom may ñu ndam. dafa am lu mu wax benn déclaration bu mu wax. dafa mel daf la fekk si li buur wax léegi. sport bi ngay pratiquer sport de combat bi. Mhm. moom fi mu nekk sax ay gants lay fanaanoo. Mhm. na dafa bëgg ngeen taxaw raak ba mu ba neex. waaw yàlla baax na lépp dañ koy bàyyi si loxo suñu borom rek. bis ba moom lu mu laaj rek dañ koy def incha allah. Mhm. nee woon na upaajam gëmul wax boobu. da ngay théâtre ndax moom ñi ngay upaajam <laughs> moom guy gi du ci bokk. waaw loolu dañ koy bàyyi wax ci moom mais lépp man moom amul lenn lu ma si wax. you man man euh, yàlla suñu borom moo fi ne. lu dul yàlla rek neen la. rappel pas la moo leen wàññil danga non du dara suñu grand frère la dañ koy jox cër jox ko li muy mais dinañ koy dañ koy res lépp nañ koy jox bët bu ñuy xoolee grand frère moom nañ koy xoolee mais jour ba enceinte bi grand frère du fa am. wax na moom wax na ni dafa bëgg rëg-rëg <coughs> moom guy gi bi bëri woon ak Ama Baldé 2012. Mm. moo fas yéene laaleeg ki nga xamante ne mooy rëg-rëg nee na dafa bëgg gis rëg-rëg bu oos bu am doole bu taxaw bu bëgg a bëre ak làmb ji yow loolu loo ko ci wax. waaw loolu amul leen lu ma si wax man moom man li ma li may def man li may def laa la waxuma ay guy gi 2012 guy gi guy gi la rek ñëpp bokk yam 2012 ak 2021 lépp benn la rek guy gi la tudd ba léegi. you kon nag am na différence amul différence man loolu sóoraale wu ma ko lu ma man lu ma intéressé. ndam laa moo ma entraîné si kàttanu suñu borom dama koy am incha allah. sa unis ba jóge États-Unis mm-hmm. dem a a mm-hmm. a waajal. waaw loolu sama staff ngeen si wax man moom staff laa am lu ma wax rek moom laay def incha allah. ñëpp dañoo favoriser woon Ama Baldé. mu ne moo ko mën mu ñëw bëri ak moom daan ko nee na combat boobu la fi gisaat moom la fas yéene indi incha allah seen diggante yéen ñaar lan nga ñu mën a wax te nee na bu jàppee ngeen mu. Mhm. Mhm. waaw xam nga tey jii mooy li may wax rek ay champion la fi daan ay champion la fi freiné mais man ak champion yooyu noonu bokkuñu qualité. Mhm. bokkuñu man-man bokkuñu ay business. côté lépp bokkuma ak ñoom ay business bokkuma ak ñoom.

lii xew suba encore une fois dama koy wax lii xew suba yàlla suñu borom rek kàkk xam. yaa may dégg waaw taataa xam nga tey ji lii xew suba yàlla suñu borom moo koy xam man manu ma kaa xam moom mënu kaa xam mais nit ki booy waat na fekk li ngay waat nga tekk fu dëggu. mais dafa gëm li non déglul lu muy waat laa la xam nga yaxut dafa doon beneen affaire bu garaaw la euh, gis nga làmb làmb chaque jour mën ngaa daan ku man yaa may dégg kon jaru muy nekk fi di waat naan bu ma ko daanee doonam yëkku loolu insisté wul xam nga loolu ba bis ba incha allah yàlla suñu borom may ñu ndaw jërëjëf jërëjëf. jërëjëf <laughs> euh, mari jaral na ma ko. ndeysaan